nuyu sëñ bi maa ngi lay fay soxna si. baal ñu fàttali ñu tur jëwriñu waa xel ko. d'accord jëwriñ nga ñu mën a wax tey jii ci màggal gi ak ni ngeen ko préparé ak togg yi. waaw ñoo ngi santaat bu baax sëriñ Bacco di ñaan soxna Aïda Saliou mu yàgg fi lool te am na ko ak ñaari buntu mi soxna Batoor Saliou Thioune soxna Adja Saliou Thioune ñu yàgg fi lool te wér te ñu jëriñoo seen yàgg fi waaw ñoo leen di di leen dalal jàmm. fii si waañu xelkom si projet bi kër Serigne Béthio waa kër Soxna Adja Salim waaw pour répondre sa question rek maam par rapport ak màggal Serigne Touba gi moom dañ koy santaat rek bu baax a baax par rapport màggal gi ndaxte wax dëgg fa yàlla moom bés bi kenn ku si mbokku taalibe yi moom daanaka di nga def loo loo mën ak loo mënul waaw ngir rek lii Serigne Touba woot si màggal gi. mais bés bi bu ñëwatee képp koo xam ne sama mbég sa mbég la li ci dalee ginaar ba gëléem moom lu ci waay am moom santalee ko suñu borom waaw ci loolee rek lañ tegu moom santalee yàlla Serigne Touba moom ci màggal bi waaw ba tax na amuñu si lu dul mbégte waaw ba tax na noonu lañ koo defee moom togg suñuy suñuy bernde moom ñoo ngi si añ yi bi si kanamee tuuti dañuy teg reer yi moom mu bari te neex waaw di ko séddale te du am xaaj ak seen maanaam amul xamul kii murit la amul kii tijaan amul kii chrétien la moom ku ñëw rek waaw ñu bokk ak yow xéwalu Serigne Touba. événement bi dafa mel ni da ngeen fas yéene dem ba guddi. waaw dem ba guddi ndax fii ak guddi moom xam naa ne soxna si si moom soxna Aïda Saliou dana woote ak cant moom bu ñu paree si reer yi wax dëgg fa yàlla moom mbokku taalibe yëpp dañuy sangu ba set moom solu yére rafet. xeeñ ba neex moom dem jàkkaarloog suñu sang bi dëgg fi yàlla sant suñu béykat. a togg yi góor ñi togg ak jigéen ñi dañoo volontaire ñëw di ko wala ay daayira la. waaw fii ay ay ay ay daara ñoo fi daje moom ay daara yoo xam ne ñii Tëngéej lañ dëkk moom ñii Saint-Louis ñii ñii ñii Madinatu Salaam maam bu ñu fi limee duñ fi jóge moom ñun ñëpp ay mboqu taalibe lañ moom jokk si moom soxna ay Sall yu dëgg-dëgg jëm sëñ Béthio waaw noonu la demee. Mhm. plat yi mën nañ xam actuellement lan lan ngeen di togg. waaw plat yi moom euh, ñoo ngi togg ay ceebu ndawal ay ceebu ndawal la ñuy togg instant bi waaw lim bi nag duñ ko mën a tudd waaye ay ceebu ndawal la bu ci kanam yi tuuti war nañ teg moom ay tufe ak ay macaroni. Hmm,